Uh, asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaw mbokk yi dañoo ñëw ak ci waxtaan bi ñu leen wax ne danañ ko def bala ñoo joxe xibaar yi waxtaan bi nag mooy xeetu lislaam ci diggante martu beeg bi xeetu lislaam ci diggante leede dëkk bi leede mooy martu dëkk mooy dëkk xam ngeen ko mooy lii féete suuf leede bi mooy euh, mooy Union soviétique martu bi mooy euh, maanaam leede bi mooy Union soviétique dëkk bi mooy Amérique xëy na ñi nga xam ne dañuy dégg léeg-léeg may joxe ay xibaar ñi jàpp ne Cheikh dafay far faruma fenn man ci lislaam laa far waaye nag mbir mu nekk bu dee jóg na muy doxe noonu nga koy toppee ba mu jeex ndax soo ko tëppal noonu ba jeex bis buy buy jeex nit ñi duñ xam naka la te nit ñi dañoo war a xam naka la te xale yi ci réew mi ak yi nekk bitim réew te nekk ay sénégalais mbala ñu nekk ay africain yu ñuul wala ñu nekk sax africain yu yu yu arab yi dafa am loo xam ne dañ koy xaw di réeré ndax dañ ne kenn ku nekk kala moom nga xam tàng ak loxoom Euh, fii ci Sénégal jàpp Mali mu ma ak Guinée jàpp noonu moom lépp lu màcc ci France ak Amérique ak Occidentaux bi waxatuñ ci dara dara dara dara loolu moom moo wér waaye bu njëkk sax daanañ ci wax dara ndax ñoo ngi wax Barça mbaa Barcelona ba léegi man boo ma doon jox deux milliards ak yóbbu ma France du ma dem kon maa ñoom bokkuñu ndax ñoom li ñu leen di woon woon ginnaaw ñu ngi yaakaar ne fa la jàmm ne ñu ngi yaakaar ne fa la alal ne ñu ngi yaakaar ne te la fa nekk fii lañ koy jëlee si ñoom yóbbu ko fa ñoom ñu dem di ko jëli ji delloo siwaat kon maanaam ñoom buñ bañee accident bi benn man bañ naa ko ñaar téeméer waaye nag du tee damay neutre ci atte bu ma dee atte xew-xew bi ni mu demee noonu laay wax même bu fekkente ni France ñëw na dëgg tànkam Sénégal di def lu ko soob France ñëw na dëgg tànkam Mali def lu ko soob fekk fi góor ñu waroon a doon ay góor ñoom ñu wëlbati ku seen kanam comme ay jigéen lu ñu doxal ñu ànd caag ñoom ba neexuma neexul keneen ci képp ku am jom te xool ci ñi fi jiitu woon ñu mel ni maam la Dior Ngoné Latyr Diop ñu mel ni maam Alpha Yaaya ñu mel ni maam jëri jëri jëri jëri Joor Samba Yaay ñu mel ni ñoom ñu ci des ñu mel ni ñoom maam Serigne Touba ñu mel ni ñoom maam Cheikh Omarou Fouti ñu mel ni maam Ablaye Niass mi bañoon ba gàddaay génne dem Gambie ñu mel ni ñu mel ni ñu mel ni maanaam ñi nga xam ne ci ñooñu la ñuy xool ñoom li ñuy gis rek mooy France moom dara baaxu fa dëgg la dara baaxu fa waaye bu loolu amee itam kenn ku nekk ki la moom nga xam tàng ak loxoom ñun ni ñu bañee Occident bi ni ñu bañee France ak li mu ñuy noggutoo mais noonu la Union soviétique di noggutoo ñeneen feneen benn lañ nee naa leen gaynde gu xonq la ak gu weex fàdd lekk mooy seen métier yow nag gu xonq gi moo la fàdd waaw moo tax boo déggee gu gu weex gi yëmmu rek nga ne ah xëy na gaynde gu weex gi bu dikkee dina ma génne ci mbir mi ndax gaynde gu xonq gi moo may lekk mais gaynde gu weex gi bu dikkee dalay xëccoo ak gu xonq gi waaye bu dàqee gu xonq bi ba noppi dalay lekk maanaam uniseeti bu dikkee ba ba génnee France ci territoire lu yi wala ci territoire Afrique Afrique sowu jant itam yëpp su ko ma doon def ko itam la fi France doon def lu ko raw lay def ndax moom sax danaan ñii kii moo leen yar yàgg yàgg dañ dell ci moom naa gaawantu profité buuba buub waaye ñun dañuy buub rek loolu mooy li nga xam ne moo am Euh, maanaam ñooñu ñuy wax ay euh, nuñ ko waxee te sax mooy waa kër Union soviétique yi nekk fii ci Mali te nekkoon nañu fii ca ca ca Libye nekk nañu ca Syrie di xeex muy xeexkat yi mercenaires yooyu nga xam ne moom la moom la moom la moom la moom la wol ma fa wol ma Ibrahima moom la moom la fi moom la fi Union indi foofu ci Mali moom la fi service yi indi ci Mali euh, euh, ñu gis ne ah tubaab bi de bëgg nañ fee def lu tolloo ak ay ati ati ati at te amuñu jàmb liñ bëggoon ci ñoom defaluñ ñu ko léegi nag gars yi ñëw nañu rek tàmbali daq da tàmbali tàmbali di ñu di di di ñu defal liñ bëggoon te liñ bëggoon mooy mucc ci islamiste yi fi tubaab yi indi ginnaaw bi ñu daanee Xadaafi te ñun mënuñu dara yuuxu yuuxu wala daal man waaw kii bi dafa yéex kii bi dafa gaaw xëy na sapeur pompier bi daa du yëgul ay citerne am pour man noo fa lakk giti gee taxaw na kon nañ dem ca ko taxaw waaye ñun mënalu suñu bopp dara loolu moom dafa war a leer léegi nag ci demee noonu la la ñeneen ñi di xool bay wax ne ñuy seeti kët du ñëwee fii indi fi yi Wagner yi ñoo fi dàq tubaab bi euh, léegi Wagner yi ñu nga ànd ak Mali ñu ngi lijjanti problème bi dëgg la mais nañ ko lijjanti ba mu réglé waaw ndegam ki la doon lijjantil sa poqi mu të moo la doon jëriñoo sàkkantumaa ki la ko lijjantil ba noppi li France roñ ci Mali ci ay or ak yeneen ak yeneen yóbbu ko France ci ne wu yee day taqali Mali ak ak ak ak ak ak yi te moo leen fa dugaloon ngir loola bu Wagner yi ñëwee reyante doon yi sàngi ne reyante reyante reyante ba rek problème bi ndegam ki ko doon jiim te mënu ko moo gob bi sa alal yóbbu ki ko jim su ko manee ki ñëw jim ko man ko nu muy def boo dee goro lu mën a tibb di yóbbi doo ko ne déet ndax li yow li tëwoon waaja moo ko def yooyu yooyu nit ñi da ngeen see war a yeewu loolu nag dama ko jiital ci waxtaan bi rek pour euh, ñi nga xam ne dañoo xam ne Cheikh dafa far man faruma fen man ci doo dong laa far te bu waxtaan wi eggee ngeen xam ne ci islam laa far léegi nag <clears throat> ma ñëw ngeen ci xeetu l'islam ci diggante lee deeb union soviétique ak dëkkab amérique maanaam amérique dafa soppar ci politique am bi mu ñàkkee lu ëpp ñetti junniy soldaar ci xeexam bi ci iraq te xeex boobu da cee woon waa àddina yëpp ñu di ko jàppale léegi nag mu bëgg a def beneen politique politique bi muy def mooy euh, damay taal guerre boo xam ne Eh, ñeneen a ma koy geeral waaye man duma ca feeñ te jaan jooju Babacar bu doon wax <laughs> defe naa ne man maa ko gën a xam jaan ji ni muy ni muy doxale jaan ji dafa ngooloole timis yi jaarli bi nekk fa sëng ba demee Égypte nekk fa jaan jaar ba mu demee Yaman ak Syrie mu nekk fa saamaan même jaan ji la nag ndax timis moom ngoolool la fi dañoo yëngu tuuti bi jeex waaye màtt na timis yi daaneel président ba màtt na libi rey Kadhafi màtt na Égypte daaneel Hosni Moubarak rey Mohamed Morsi màtt na Yaman rey Ali Abdoulaye Saleh taal fa bu dul jeex dugg Syrie muy jaani yahud ji léegi nag euh, euh, ni ñuy doxalee moom ni ñuy doxale seeni mbir moom ngeen mënut xam Amérique di doon wàcc ci terrain bi xeex mais bi nga xamee ne soulèvement wu arab yi am nañu ko rabi wala arab yi lim ci liggéey lim ci liggéey moom yéen xamuleen ko maanaam bi nga xamee ni union soviétique mi ngi yebal Wagner yi ñuy dem di xeex Libye mi ngi yebal Wagner yi ñuy dem di xeex Syrie mi ngi yebal Wagner yi ñuy xeex ci ba Mali mi ngi yebal Wagner yi ñuy xeex ba Burkina Faso booba Amérique moom mu ngi profité ci loolu di former yeneen sanguinaire yoo xam ne ëllëg dana créer union soviétique problème ndax ba mu duggee Afghanistan booba Amérique daa ngàbboon abola meñam di campagnal Afghanistan di campagnal jullit ñi waxoon naa leen ko fi ba yebal benn général bu retraité boole koo ki dongoom euh, ñu dem Turquie def fa base di entraîné dongo yi Usaama bin Laden yi pour ñu mën a dem xeex Afghanistan di di leen jox alal di leen jox jox leen radar complètement ñu mën di jottale ñu mën di wax ñoom seen biir wëlbatiku nag di annoncé fépp ci àddina bi di wax ne jullit ñi dem leen taqale ji Afghanistan ci loxo Union soviétique booba ñooñu doon dem tudd ñu woon tudd ñu woon ay mercenaires te tudd ñu woon ay ay ay ay terroristes mais bi mu demee ba am la mu bëggoon ba daaneel Union ba teq ci fukki réew ak juróom ñi mu ñu moom seen bopp booba nag la door wëlbatiku ne yéen ñii doon xeex ak Union soviétique nag ay terroriste ngeen dañ leen a war a rey fu ngeen mën a nekk ci àddina bi loolu def na ko jàll na union soviétique daanu na bàyyi na réew yi nga xam ne ñoom la yoroon mais bi muy bàyyi réew yi nga xam ne ñoom la yoroon dafa am ñaari réew yoo xam ne benn bu ci nekk union soviétique moom itam daf saa créer problème li problème bi mooy bi mu bi mu bi mu nar bi mu nar bàyyi fukki yooyu ak juróom te am ci place yi mu soxla am ci place yoo xam ne am na mbokkam mu ko soxla politique bi mu doxal mooy dafa ñëw ci am ci ci ci ci ci Armanistan mooy Arman daal di jël euh, gox boobu nga xam ne moom la ñu doon xëccoo muy Nagorno-Karabakh avant muy dagg euh, réew yi dafa wax arménien yi ñu dem sanc ci Nagorno-Karabakh bari fa lool def fa seeni projet seeni béyukaay te ñoom ay arménien lañ te Nagorno-Karabakh ci ci ci ci ci Azerbaïdjan la nekk ba mu leen bàyyee ñu xëccoo Nagorno-Karabakh ba ñu xëccoo Nagorno-Karabakh Armanistan ak Russia ñoo ànd sot Azerbaïdjan te booba Turquie amagul doole nangu Nagorno-Karabakh féetaliku féetaliku armanistan yi te fekk na ña fa nekk ñu sancal leen fa te ñu dëkk armanistan bañ leen fay sancal pour ëllëg ñu xëccoo ak waa Azerbaïdjan Nagorno-Karabakh nangu ko ci ñoom ne fii lañ dëkkoon duñ fi jóge loolu lañ ci jublu woon ñu def ko ñu dem nag léegi ca Ukraine Ukraine avant mu koy bàyyi Désiré Touré dafa faa sonk ay soviet ba mu fees dell dafa faa sonk ay russe ba mu fees dell nga xam ne ñoom sax ñoo fa ëpp waa Ukraine te Ukraine seen dund la ñoom ñoo ko moom ndax ci seen réew la tax ba mu yëngalee ba mu ba mu ko yëngalee coolo comboy mu daal ne léegi nañu ko watee te booba doomi riche ñoo fa gën a bari te dund bi Ukraine moo ko moom dégg naa fi ki wax naan riche yi ci yoon la jaar ndax euh, jasiratul xarm dañoo wate ñu bëgg ñu ñu wax ne ñoom riche la ñuy àndal waaw bu leen neexee kay ndegam ginnaaw yow ginnaaw ginnaaw ginnaaw ginnaaw jasiratul xarm Ukraine moo ko moom riche yi dafa coloniser woon Ukraine mu bokk ci moom mu dem ba di ko bàyyi te bëggut a bàyyi jasiratul xarm mu mu évacuer ña fa nekkoon ci ay ukrainiens yëpp dàq leen ñu dem Ukraine te boobu bàyyigul Ukraine mu sol fa ay riche ba mu fees bàyyi fa tuuti tuuti ci ay Ukraine lekk su bàyyi Ukraine ne ko bàyyi naa la te mënu ko wax ne bàyyi naa la te du ma la jox jeesiratul xarm te jeesiratul xarm bokk ci Ukraine da koy bàyyi bàyyi waale ko jeesiratul xarm ba mu ko bàyyee ba Ukraine jël jeesiratul xarm boole ko ci réewam yaakaar ne moom na ko mu daal di influence riche ya fa dëkk ñooña taxaw na ñun bëgguñoo bokk ci jeesiratul xarm coow li jàpp ko jàpp suuf bi coow li jàppee ko jàpp suuf mu ne nañ ko watee ñu watee waa riche yëpp a dëkk te ëpp wate wate wate nañu wate wax wate wu ñu ne dañuy bokk riche de dañoo wate ne dañuy dagg ci jasiratul dañuy dagg jasiratul xarm ci Ukraine ñu wate gañe ba ñu watee gañe ba dagg jasiratul xarm ñu ne léegi ñu riche lañ bokk daal di ñibbi riche loolu moo tax riche soxee na ba jël jasiratul xarm te te te annexé na ko naan mais annexé gi def na tappale yoo xam ne tax na kenn mënu koo xam ba léegi nit ñi di wax naan dañoo watee woon bañ watee ña ña gañe ñoo ëpp moo tax gestul xar ma génn ci Ukraine déedéet avant ñi avant Russie di bàyyi Ukraine dafa dax ukrainien yi nekkoon gestul xar mu ba daanaka tuuti des fa mu remplir seen place ay riche yoo xam ne ñoom askanam la ba noppi dara koo bàyyi bàyyi waale gestul xar mu ne léegi ci ci Ukraine la bokk. ba ñu demee ba ne ba yaakaar ne ñoom am nañ jasiratul xarm ñu yëngal riche ya fa nekk ne leen lànk leen ba tëdd ci naaj wa bi coow li dikkee dañ koy wate bu ñu watee yéenay gan yi ñu watee riche yi ëpp doole ba riche yi ëppee doole kay nangu seen ko nangoo ñibbi ci seen léegi ña fa nekk dëkk Ukraine kum neex nga nationalité russe kum neex nga génn ko waaye nangu nañ ko ci pexe loolu la waaye loolu waa ji doon wax ca Mouhalim info di wax ne jasiratul mu dañoo wate nangu euh, gañe ko du dëgg tappale yooyu moom la ñu def léegi nag <laughs> mu des mu des nag Donbass Donbass itam foofa ukrainiens yi dañ faa gën a bëri te ci Ukraine la bokk nekk ñaari région ñaari département Lugansk ak Donetsk Donetsk mais ukrainiens yi dañ faa gën a bëri te ci seenam réew la bokk te dafa taqaloo moom nekkul ab dun sax bu def sipu jasira maanaam melul ni gore leen di nekk ci géej gi leen taq ci réew mi waaye moom waaye moom dafa taq ci réew mi complètement foofa itam riche bëggoon na koo jël ba ko riche bëggee jël dafa am ay riche yu mu fa bàyyi ca jamono ja nga xamee ne ma nga fay jógee mais nag mënta jël jasiratul mu sol ko waa riche yi ba mu fees dell mu dellu jël doon baas sol ko waa riche yi ba mu fees dell kon kon nation si dañ yow liggéey def ni leen nga mais am na ay riche yu mu bàyyi ca ca ca Donbass làkk riche mais nag waa Ukraine ñoo leen fa ëpp te waa Ukraine ñoo moom suuf sax waa bi mu lekkee xar xarma ba mu rees mu tulli nag dem Donbass Donbass moom xam na ne wate mënu ko koo may ndax Ukraine ñoo fa ëpp doole ci mbooloo te ñoo moom suuf sax mu daal dafay créer rébellion ne léegi xeex leen pour pour nangu seen seen jasiratul xarma euh, nangu Donbass rébellion boobu suñu doon bàyyi nag Ukraine ñu ndekkee leen balaa añoo jot fekk rees nañu waaye dañ leen a appuyé ñoom waa riche joxe leen armée jël ay civil eh, jël soldats yi civil yi dugal ci biir ñuy xeex depuis booba ba léegi ñu nekk ci xeex Ukraine na du ko bàyyi riche ne du ko bàyyi léegi nag ginnaaw Ukraine ne na du ko bàyyi te riche bëgg naa jël Donbass te il faut mu jël doon Donbass léegi mun a xaaral soo kente ni daw bàyyi Donbass ma jël la yow ci sa bopp soo nee siiwa mucc doo joxe biir bu bu ma la coloniser waatee comme na ma la defoon bu njëkk bala ma laa bàyyi dégg ma bàyyee ak doon baas ma boole comme kesiratul loolu mooy politique bi nga xam ne moom la Russie di doxal te jàng ñun ñi leen di topp boobu ba léegi xam nañ ne loolu moo am ñaari place yooyu bu fekkoon te ni Ukraine bañ ko bàyyee ba noppi te Russie soxla doon baas nee na ko jëlal mun na ko jël si xaram mun na ko jëlal kon doo koy dafa taawam ku ko joxoon ma damm sa baaraam waaye nag defu ko waaye avant muy def loolu yan pexe la ñu def avant muy def loolu yan pexe la ñu def ak kan moo ko doon jàppale ci pexe yi mais ñii ñii tey eh, di jàppale Ukraine da dañuy xeex ak Russie ñoom ñoo ko doon jàppale ci pexe yi boobu ñoo ko doon jàppale ci pexe yi ndax ba ñuy séddoo réew mi ba ñuy séddoo union ku nekk jël liñ ci moom ndax dañ koo boole woon dañoo séddoo armée ba comme liñ seddoo yee suuf suuf union soviétique Ukraine amoon na ñetti junni têtes nucléaires yi ñu ko jox américains yi ne riche def ngeen lu njuumte kii war leen ko bàyyi jox ko ñetti junni têtes nucléaires kanaa têtes nucléaires ku ci fukk doon ki mënu ci dara sakkantuma ko ci ñetti junni léegi ñu di ko dialogué di ko dialogué ku dëgër bopp yéegee wate gars yi contre ko wàcc ko ba teg fa koo xam ne wér na ne kii li ñu bëgg dina ko nangu ba kooku dikkee nekk président Ukraine ñu jaare ko ci moom ne ko léegi dañoo bëgg wàññi armement nucléaire bi léegi yow dangay jël say bomb atomique nga delloo ko Union soviétique nga bokkoon bu njëkk danañ la dimbale ci xaalis danañ la dimbale ci lii danañ la dimbale ci laa te man Amérique maag Union soviétique ñooy ànd ñun ñaar garanti sa sécurité loolu mooy koy kenn du la tooñ ndegam Israël Amérique donc ko garanti tam të kon kay Union soviétique ak Amérique buñ waxee ne ñooy garanti Ukraine te Amérique ci boppam otaan mi ngi ci gannaawam kon Ukraine day woolu mu daal di yaakaar ne joxe bombe atomique yi nag te Amérique di sama nijaay Union soviétique di sama baay may lëmbee comme Israël ku ma tooñ ñu duma la ku ku ku ma tooñee ñu ku ma tooñ moo ma gënal bombe atomique ah mu delloo bombe atomique ya ba mu delloo bombe atomique ya nag ba noppi ba Union soviétique xam ne yett yi nga xam ne bu ko Ukraine yoroon du neex a song jot naa ko ci moom la daal di nangu jasiratul xarm ne ko danga ma ciy tegal Donbass mu bañ Donbass mu ne ko kon yow ci sa bopp sa biir sa biir kër laa ñëw samp fi baas dama dama lay nanguwaat ndax amul lenn lu mu mën a défendre boppam lu mu ngi nii di waxi moom Union wax naan gars yi yor bombe atomique yi pare leen taxaw mbir mi fi nekk nii li ma bëgg dina am mbaa dinaa raf àddina waaw bu fekkonte ni Ukraine ma nga ñetti junni tête nucléaire mu daan ne juróomi nucléaire nañ ko bombardé Union soviétique mu jeex dañ ko daan ma attention kat nguur si dafa tuuti waaye abar nay pexe mais dañoo nangu armement yi mu yore woon ba xam ne yorutul dara ñu door ko song loolu moo tax Ukraine ci côté boobu laa koy contrer Union soviétique nag côté bi ma koy contrer mooy waa ba jiiba gi muy def moom ak américain yi fu seen intérêt nekk ñu ànd fa fu seen intérêt ñàkk nekk ñu bañ fa ànd loolu laa loolu laa leen di contrer ñoom ñaar ñëpp da nga ma wax ne lan moo tax Amérique nanga woon a juboo ak Union ci ñu nax Ukraine Ukraine ay ay ay maanaam ay Kyrgyzstan maanaam ay ay Turkmanistan dañ faa bari maanaam Ukraine Turki xeetam dafa bari te trente cinq pour cent musulman am na Ukraine waaye xeetu Turquie dafa bari même Union soviétique maanaam Russie googu ngeen di gis am na fa lim bu bari bari ay millions yoo xam ne ay turc lañu ay turc la ñuy làkk ndax dañoo mas a coloniser côté boobu te turc réewum jullit la te mas naa nekk puissance islam grande puissance islamique kon bépp dëkk boo xam ne ay turc dañ fa dëkk nekk ay jullit mën a àddina mën a dox bañu ñu moom réew ma dëkk boobee su amee ay tête nucléaire danañ fexe ba bale ko ba jëlee ko fa Turquie américain yi dañ fa andiwoon ay tête nucléaire ne ko jarul ngay wuti ay tête nucléaire cinquante tête nucléaire a ngi noonu ñu teg ci sa place yi sa dëkk te boo soxlaa leneen ñu yokkal la ko ba mu demee ba xam ne lii mënut a am te bu ko solo xoolaal la nucléaire yi américain yi ko fi teg mu tourné bëgg a liggéey yi boppam la gaa yi jël tête nucléaire yi yóbbu ko grec kon pexe yooyu nga xam ne moom la ñuy def di dam yee ko ping pong ka tic tac ci biir àddina bi union soviétique ak Amérique koo xam lu mën na laa man àndul Occident man àndul Orient bokkuma union soviétique bokkuma Amérique la charqiya la garbiya widatun islamiya la charqiya la garbiya ummatun islamiya jullit du bokk ci Occident bi jullit du bokk ci saw ci penku bi man demul penku man demul sowu ummatan wasatan ci digg bi lay nekk ndax loolu lañu yàlla sant waaye nag du tee bu àtte jotee damay àtte mbir mi ni mu demee loolu mooy li ma leen di njëkk leeral ci eh, li tax ànduma ak Russie te yéen xamu leen ko ànduma ak Amérique te yéen xamu leen ko yërëmuma Ukraine yi te yéen xamu leen ko <laughs> ndax li tax yërëmuma Ukraine mooy moo sàggan ba delloo ay bomb moo tax ñu duma ko ànduma ak Russie ndax Russie itam ba muy jël bomb yooyu ci ci ci ci bëggoon a nangu doon baas la ak ak ak jasiratul xam àndama ak Amérique ndax Amérique bi muy complot Russie pour boobu pour arme nucléaire boobu jóge foofu dafa gis ne Ukraine bari na ay musulman te xeetu Turquie ña nga fa te bëgg te Turquie li taxoon da ngay seet niñ def Turquie Turquie dañ ko jël ne ko bokkal otaan bu ñuy xeexi nga dem mais mais doo bokk Union européenne ndax am jullit ga loolu naka la mën a nekkee bokkal otaan bu ñuy xeexi nga dem te otaan Europe yëpp ñoo ci maase bokk ñu ne ko bokkal otaan te doo bokk union européenne kon bu dee jotee kaay ñu ànd dee yi waaye bu jàmm amee ñu tàggali ko loolu la ñu wax loolu la wax Turquie mënoo bokk union européenne te bokk otaan te li tax mu bokk otaan mooy dañoo xool ne réew mi ëpp doole ca jooju jamono moo nekkoon Turquie léegi ñu ne ginnaaw nag programme l'islam mooy Turquie nañ boole programme l'islam ci biir otaan ñu daal di koy nangul dugg otaan waaye nag ñu ne ko doo bokk ci union européenne loolu lan ngeen ko mën a tekki lan ngeen ko mën a tekki lu dul ay waa ba jibale ñuy def kon diggante boobu leer na nañ ñi ne Ukraine Cheikh àndut moom Union soviétique àndut ak moom àndut ak Amérique àndut ak France man l'islam laa àndal ak di arbitré comme ni nga xam ne noonu laa gise man léegi nag ba tey feeñagut ba tey feeñagut ne xeetu l'islam ñu ngi ci diggante martub union soviétique eh, martub ak ak dëkkab Amérique léegi nag ma ñëw indi leen naka la islam nekk ci diggante martub russe ak dëkkab Amérique xam nga nit ki soo reyee ni jaayam rey baayam rey magam jubo góor euh, génne ko réewam yóbbu ko feneen ku dikk ne ko kaay ma jàppale la ci ki la teg lii dana d'accord ngeen gis ni Amérique di defee politique mook Israël dugg nañu si dugg nañu dugg nañu Tunisie complication yi dafa gañ am ñu évadé dem am ñu fa des dugg nañu Libye complication yi dafa gañ ñu wàcceeg seeni bomb tajaxee Libye ba mu jax takk rey rey rey Muammar Kadhafi libyens yi dag dugg ci ay ay gaal raw yi ñu dugg Yaman tajaxe foofu rey Ali Abdoulaye Sali taal fa guerre ña ñi me taxaw fay xeex ña ragal daw nañ dem Europe ñu dugg ñu dugg Syrie taal fa guerre lu ëpp quatre millions cinq millions dugg bi Europe léegi syriens yi nekk Europe kan moo leen génne ndax américains yi leen génne waaw mais xamuñu ne ñoom ñoo leen génne mais xam mais ñoom ñoo leen génne ndax am nañ veto te ña nga ca Nations Unies te mënoon na ñoo fanq bi mu te fanquñu ko dañoo bàyyi dañoo dañoo taal rébellion ca biir Syrie rébellion ba nekk rébellion islamique nekk am jamaatu nusra muy muy rébellion islamique bu nekk foofu ci Syrie léegi Bachar Assad jekkadi wooyi Union soviétique Union soviétique dikk jàppale ko mu wooyi Iran Iran dikk jàppale ko foofu Amérique ak Israël dañ fi am ñaari atu atu bu njëkk bi mooy na moom dañuy bañ ci aba faw ndax dañ naan ñun bu ñuy xeex fii ci Syrie ci ay dañoo ànd ak Union soviétique ñëw li ñu xeex kon tàqale nañ leen dootuñu jubóoti ba mukkati ñu ñoddi Hezbollah mi nekk ci Liban boole ko kon léegi tàqale nañ ñoo Hezbollah dootuñu jubóoti ba mukkati ndax léegi ñu ngi ñuy rey ci Syrie ñun halluciné kon dootuñu jubóoti ba yaa ngi dégg mu wàcc fa moom Amérique fa mbay ma féete ndox mu neex ma nekk fa ak pétrole ba mu àgg ko bàyyee la ca des Union soviétique ak Syrie ñu nekk fay reyante Turquie moom bëgg na jàmm mënu la fexe fexe ba gaa yi daye foofa ci dee du leen bàyyi dugg seen dëkk ba dëkk ba bëggee fees mu ubbi na jàll leen biir Europe ndax xëju leen fi gaa yi dugg Europe gaa yi duggal leen fa ay millions syriens ñu ngi ci biir Europe ay libyens yi dul jax ñu ngi ci Europe ay yamaniyeen yi di sax ñu ci biir Europe kenn ku ci nekk am nga la naqari Syrie ñi ci nekk Europe tey bu ñu leen waxee ne bu ngeen bëggee nekk ay européen am ay kayit seen jabar ak seen doom dikki fii kaay leen dem Ukraine ngeen xeexe jeeg Union ndax moo leen dàq Syrie dañ naan acca kon kay xeetu islam a ngi ci diggante marché beeg dëkk bi ñu ñu ñu ñu di leen nax léegi ki ñuy wax Vladimir Zelensky ab yahud la ab israélien la ci xeetu yahud la bokk te loolu ñu bari xamuñu ko da seet bi demee ba xeex bi metti nee na ubbi naa Ukraine pour ku bëgg a jàppale Ukraine xeex ñëwal waaye nag tëj naa Ukraine ci képp kum fi fekkoon te dëkkoo fi da ànd ak man xeex par la force waaye doo fi jóge ñaar fukki junniy marocain ña nga fa ay jën loolu armée la daanaka xam nga buñ leen forcé ci xeex dañuy xeex dégg nga léegi xoolal ñi ëppale ay jullit yu gàddaay Syrie dem France ci la bokk Allemagne ci la bokk Angleterre ci la bokk bi président wu Ukraine bi waxee ne ubbi naa Ukraine ku ñu bëgg a jàppale ci guerre bi dikkal waaw waa Syrie ga màbboon dem Angleterre te Union soviétique dàq leen mënuñoo ñibbi waaye ci seenam réew bu ñu leen nee ka leen dàqee seenam réew kat mooy xeex ak Ukraine jàppale leen Ukraine ñun ñu jàppale leen su ngeen ko duma ba mu tëdd dana dellu wiis ga mu dëkk ngeen ñibbiwaat yow ngeen ñibbiwaat siri ci jàmm ak salaam gars yi dañuy d'accord léegi ñu dellu waqati nag doomi jullit yooyu gëdd duggoon biir Europe détourné leen dellu leen Ukraine ñu dem xeexi Union soviétique benn danañ ca jeex ñu jeexaate doone doole Union soviétique te Syrie ci boppam la Israël di faf nangu nag def ko dëkk boppam mu ne niir Furaat loolu moo di la loolu la loolu la tubaab yi gëm te loolu la américains yi gëm pakk bi gënoon a rëy ci pakk yi ñetti pakk la mooy Syrie mooy Irak mooy Égypte Égypte moom sukk na raam jébbalu bokkatul Irak talatu ko ndax cib xeex la nekk Syrie talatu ko ndax cib xeex la nekk te li gën a waar mooy Bachar Assad mi ngeen di gis baayam moo jaayan Golan da koo jaay xaalis la ko jaay waa Israël jënd ko ndax la leen fa dàqee déedéet Sénégal sax jamono jooju bu taxawoon Golan ak armée Italie mënu ko faa jëli kon ay tappale leen fa jëli Hafiz Assad nekk na fi ba jóge foxatu ci Golan gi ci bokk kon am na lu tax waaye xeetu lislaam lañ bëgg def comme balle ping pong yaa ngi dégg di leen utiliser ñuy dee pour ñoom seeni intérêt ñoom grande puissance yi si mu nekk nii képp koo xam ne kii dégg nga Ukraine di wax ne ku bëgg xeex na nga ñëw jàppale Ukraine ba tax nga jóge Europe ne da ngay dem Ukraine xeex yi la la tubaab yi dig doo ca jot te man nga faa dee te ñoom liñ bëgg daañu ko am doole ju bari gi nekkoon Yaman dugg na Europe muy ay xale yu góor doole ji bari ji nekkoon Syrie dugg na Europe muy ay xale yu góor du ñu leen fa bàyyi de ñu leen di lajil luñ leen delloo si fii ñu yokk doole seeni réew dañ leen di détourner foofa yóbbu leen Ukraine Union soviétique massacré leen seen yax ya seey foofa bu ñu walee muuf te ñu nekkee fa loolu tubaab bi bëgg loolu nag nit ñi ñoo ko war a bañal seen bopp yeewu leen lillaay wa rasulihi yeewu leen ci tubaab yi ak seeni pexe ñun moom ki ci ëpp sens mooy ki xet soos bi xeeñ waaye lekk ci moom kenn du ko def waaye nag am na ci ñoo xam ne xet ak soos bi dina leen xeeñ waaye lekk ci sax duñ ko def lii moo tax ma ne leen xeetu lislaam mi ngi ci diggante martub Union soviétique ak dëkkëb Amérique Amérique nekk ci suuf tegu ci dëkk bi ñu fab xeet yu teg ci Union bi mooy martub bi topp xeet yi ci noonu lañ nar a dëkkee ak ñun ba liñ bëgg ñu am ko mooy golfe bi yëpp Israël jël ko ndax nee nañ golfe bi moo di seen suuf xam nga julliti naar yi buñ moytul fi ñuy mujj ay aqalliyaat la ñuy doon boo ñëwee ara Sénégal fekk fa ñu bokk Arabie Saoudite ca gor ya bañ ku leen moom boo demee Mali fekk fa ñu dëkk ñu ca gor ya bañ ñu leen moom boo demee Guinée fekk fa ñu dëkk Irak ca bañ ñu leen moom waaye ku mu bugguta doon jaamub Israël di nga mës a génn ci réewi naar yi ndax Israël danañ jëlaat réewi naar yi ci mu neex leen ak mu naqari leen te ci tig tagi Amérique ak ñun sib lañ koy jëlee loolu nag boo gisee Syrie yëkkati maanaam maanaam maanaam maanaam maanaam Turquie yëkkati loxoom ne dama jël fanweeri kilomètre ak juróom guddaay eh, maanaam yaatuwaay ak tàllalam sama réew guddaay ci biir Syrie jëluma ko ngir moom ko waaye dama ko jël pour surveiller sama bopp looloo taxoon Turquie def ko fàttaliku leen Union soviétique du mu du muy bombardé du muy bombardé jullit ñi nekkoon Syrie mais da doon bombardé ba dugg biir ba dugg biir Turquie Turquie bu fa dugg teg say mu tiim sama dëkk te buñ la daaneelee bomb yi mën naa nit ñu të gars yi bàyyi ko ba mu dem ca montagne ñu sori kaw yi ñu dóor ko ñu dóor ko mu naa duggal biir naaw ak roplaanu guerre dugg biir dugg du ko defati ba mukk loolu fàtte ngeen ko mais amoon na fi ba la amee nag Turquie dafa mujj nag na xaaral may xaar ba laan ñëw ba sama réew ànd ak bopp ma di ko daane daal du yoon damay dugg ci Syrie fanweeri kilomètre ak juróom accaparé ko completement képp ko dawee Syrie te bëgg a dawee Turquie mën nga ñëw dëkk fii seenam réew la mën na leen jàppale ngeen dëkk fi ndax seenam réew la luy xaw xewe fa waaye biir Turquie dara dootu fi xewe loolu moo taxoon mu dugg biir Syrie ba am trente cinq kilomètres ci guddaay eh, ci yaatuwaay bi tàllal mi nekk nekk diggu Syrie gépp mooy Kurdistan seen diggante ñoom ñaar ak ak loolu la fàtte woon ngeen ko loolu maa ngi leen koy fàttali léegi nag li may tëjee mooy suul gi ñuy suul jaloore yi jullit ñi suul gi ñuy suul jaloore yi jullit ñi di def Bayraktar TB2 maanaam ñaari Bayraktar yi bii dafa tudd Bayraktar tb bi tudd Bayraktar Igensi Bayraktar Igensi mooy bi gën a fort boobu moom Turquie jaayu ko mi ngi ak moom Bayraktar Tibitu mooy bi gën a léger moom la Turquie jaay te Bayraktar Tibitu boobu nga xam ne moo gën moo gën a léger moom mooy def jaloor yi ci àddina bi waaye ba waaye ndaanjaam maanaam maf yi mooy fàdd cuuci waaye jaxaay ji moom ma ngi ko denc kii mën a yëkkati jëleen yóbbu moom ma ngi ko denc joxewu ko bayraktaar boobu ngay gis moom moo la jël union soviétique moo ko freiné ci Ukraine ni mu ko freiné ci Syrie freiné ko ci Libye noonu la ko freiné ci Ukraine yaa ngi dégg président africain yi nañu sant euh, nañ nañ sant nañ sant euh, Rajab Tayyip Erdogan seen daje bi ñu daje yoon Éthiopie mënoon naa am ren duñ ko tal ndax rébellion bi jóge woon côté bële naroon naa dugg ba Addis Abeba waaye bañ dëgmalee capital ñan ñoo leen fa dëpp bayrax daar yi ñoo leen fa dëpp dañu ne bàyyi bañ jël tëli bu mag bi jëm si foofu bayrax daar yi yengu leen ci yoon wi rajaxej yépp ñu daw dellu fa jóge woon waaye dogon ko nag bayrax daar kon Abiy Ahmed gaa yi jàpp nañ ko tey te kon foofa sax africain yi duñ fa daje waaye bu ngeen mënee daje Addis Abeba ne leen grâce à bayrax daaru turki yi te ñoom ay jullit lañu coow li li muy bari bari li taxoon waa ji ñime bayrax daar yee taxoon mu ñime te vingt cinq dong la ci am mais bi bi université bi turki maanaam bi bi Russie duggee euh, Ukraine ba jëbal si capital bi xam nga lan la leen président Ukraine wax daleen ne marhaban fil jahim maanaam dal leen jàmm ci jahannama ca safara ndax xam na ne gars yi dañ sàkkal pexe bayrax daar yi ñoo rajaxe mbooleem li fi li ñuy wone ci biir eh, ci ci ci ci biir internet bi ci ay salle ak yu ñuy lakk lépp vingt cinq bayrax daar yooyu ñoo leen tajaxe ndax xam loolu lépp day am na mais président bi musul nangoo tudd tur bayrax daar yi démb dala ko tudd te Rajab Tayyip Erdogan moo ko woo na yow mbaam nga ndax yow li la fi bàyyi ba léegi mooy roppalaan yooyu ma la jox te tuddoo leen fenn tuddoo leen te dogon kon ak bayrax daar yi ma la jox kon gaa yi lekk nañ sam na waaye américains yi dañ ko wax ne bu ko tudd ndax kon da nga koy publicitéel te riisi te te riisi suñum noonu la waaye ñoo bokk ñoo bokk jëmuwaay te Rajab Tayyip Erdogan am julit la soo fi waxee ne ba yi moo sowe moo moo sowe Kiev kon léegi nit ñëpp dañuy màbb dem jëndi ko léegi nag Tayyip Erdogan woo ko ne ko yow doo gor ndax yow boo doon gor booy wax foofu ba léegi grâce aéroplane yi ma la jox ñun ñu si suñuy radar tiim leen di leen xool roplaan yi nga xam ne ñoom ñoo freiné gars yi rajaxe li ëpp ci seen i seen i stade de combat ba tax mënatu ñoo continuer mooy roplaan yi ndaw yooyu ma la jox te tudduloo ko boobu la président euh, Ukraine door a def discours euh, daal di wax ne euh, noo ngi sant Turquie di ko gërëm ndax dogon ko nag bayrax daal di kon gars yi lekk lañu suñu capital bi waaye du ma leen ne mar aban filje yim la leen bayrax daal rajaxe ñoom ñëpp ci la ministre bitim réewu Ukraine woo ministre bi bitim Turquie remercier ko ne ko dogoon ko nag bayax daar yi kon ba tey gaa yi lekk nañ ci réew mi waaw ñoom vingt cinq doo nga lañ ci am Turquie gi ci am mille ki ay mille nag ndax yaakaar ngeen ne Turquie ñàkk na fayda te sax local bi la leen jox waaye vrai bi moo ko téye kon Turquie waxul de américains yi wax waaye li freiné li freiné li freiné li freiné euh, Russie turki génn ci te kenn déggul kàddoom loolu laa waxoon ne dinaa leen ko leeral bala maa dellu ci waat ci xew-xew yi nga xam ne xew na tey ak bi ci guddi ca guerre ba nañu jàppale turki ndax moo di jullit benn nañu jàppale turki ndax ñoo bokkoonum réew bu njëkk ca jamonoy Osmaani yéene ya ñaar nañu jàppale turki ndax bu ñu jëriñu di duñu wàññi dara man àndul union soviétique man àndul amérique àndul ak Wagner àndul ak maris américain waaw ñaari kuréel yi ma leen wax ku ci bàyyi benn ànd ak ba ca des itam ci ñu lekk la ngay lay mujj ndax ñoom lekkaate mooy seen métier yan yàlla tënk ci ñu tënk sellal